Sheikh Said Abu Bakar bal ma rek yalla yàlla ubbira di xanaa bëggul leen Seyid Bakar deguma len xana beugul len Said Abu Bakar ku fi nga dama Sëñ Babacar ñewal ba ci man ni ma man la man bëgg naa Sëñ Babacar ma yalla Said Abu Bakar daa seede loolu leen doora wolof dina mu maam daan daan seedeelu looyaay looyaay ami ay waay kuy bañ fii ma way bay kennal réew mi dawal cabit yow yow mbaa nga soobu ci géej gi te sax jot mboola mu ni ba ma waay

rafetu doomu gaynde njaay wacc waasoo jaxaso xare ya yàgg gay indi biin li waaw dandal ga duuna ana ñu bëgg sëñ Mbàkke aqidatun bi jata ay hana diro ila ay la manila ay la manila sing sing taxaw wéy yaay borom am diine am ngor am sutura xala rawe maandoog mu ñu tabe dëgg wuute waaw waaw dundal ge diine ah. sing bakar sing babakir si moy sama wasila iya sing babakir si moy sama wasilah dan kita Anu gana kagul si merkel leen jëf yi yàlla may seen wóolu man wayandoo si Babacar xam naa ni man ni yow laa faral si Babacar xam naa ni man ni yow laa faral bu doon élection yow laay ma teel leer na ma ni maa ngi lay jëndee dëgg jaamu yàlla la أنت الخليفة سن بكر أنت الخليفة سن بكر أنت الخليفة أنت الخليفة بحر العلم بالشريعة والعقيقة الحادي در رشيد وفوض والمنى أبدا شيخ الخليفة هادي الإنس والجان والو والو Khalifa iki kita pepeng ku basawo Aku suslap wala ngawanye ku kedelu delu Delu di sëñ Babacar ku ba taxaw ñu màggal billaay misluka laa billaay misluka laa billaay misluka laa billaay misluka laa yuraw fi zamanin ku mel ni sëñ Babacar dootul am ci soo daane dutul am ci Soudan ma dutul am ci Soudan ma salaamu xaaliquna bindal ku mel ni ki moom sellal doy na xaw suuf sam daan ee sëñ Babacar daan ndar ndar rafetul doom moo ngay nit yaay wàccu waa soo jaxasoo xar ya yaa ko gay indi nii waaw waaw dundal ngeen diine ana ñu bëgg sëñ Babacar bay seen daadu waaw sampu mbay mi kenn ana ñu bëgg seen bàmmeel ana ñu bëgg seen bàmmeel bari naan ndawal bokk laal mooy mbërëm ci waaw mbay fas di mbay si yar ci loxo waaw xayru xalxi laa ki jaat jox ko mbay mu seet ak balam Tiwaawan ak diine woote na fii waaw yoonu diine tal ana ñu bëgg si maanaam la fi diine tàgg na fii Ousmane Mbaye jaar si leen يا حلمان بي تيكم مر منام سيشنو دوتو دوتو يبوين مي جملو عثمان بي يلو سنتو مي كنجبو مكالا بي كنجي سلكو نير كنان عبد باي يا مرمتوان مي ngir woose day sama naay ci misaal tëfal te ci naay lay lay la naa def te fam di yaa dem fay bam bu saaju dalul mbay tuwaay la mbay bari ñëkk di xàll ca naay bakk leen ko mooy sangal la xam ngeen ki may bëgg a waaye moo di kan maam bàjjen kala bay waalo waalo kii waalo waalo ak naa toon ak naa toon kat fa amal kullu allah fi ma daari doon na miira fi la kaaka gen galamay daanati nga ba yàlla yokkal leer yi mu fekki waay sutural ñi moom ba gannaaw ba ñëw ba gen am Cheikh Baay ba gëral seeni cër ñu suuf ñëw ba suuf daal na jëngër seet dem na gor dëgg fàtte waaw waaw dundal nga diine ji kuy soppi sëñ Babacar jëlal wayu jëflante naag yow ci baatina yaru ñaari lamb ko ku ko xus ruslab wala nga wàññeeku te dellu dellu la sarala daanati ko man la Doch TV ma way sikka wa gertaan TV ma way TV ma way TV Tiwawan TV TV ma ma ma way sëñ Babacar bal leen sëñ Cheikh Jam nee na e sëñ Babacar boo ko mu jëflanteeg yow nga xam ni kii na baay soo ko defee mbokk ba mu jëflanteeg yow xam ni kii na mbokk kii abun abiyun habibun sahibun wa axun wa wa imaamun du karamat bu toog di yoonu قلت قيون تواور تيجان ورول جتواور تيجان ورول جتواور واوا تيجان دفاي نيو تواور تيجان دفاي نيو تواور واوا تيجان داي نيو تواور ورقتي واوا واوا ودقي ورقتي واوا may ma nekk ci bi soo ko xamoon dana jar nga def bay, mami doon Abdou aywaay. vingt mars ziyaar ni'mati ca bàjjen Kalamay. aywaay. nañ àndandoo ni'mati ànd ak bàjjen Kalamay. aywaay. toog ca buntu raw kalambay ya kalambay ya kalambay